asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 11 juin 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu làmb lay xëy tey yëglekaay bi nag Eumeu seen la xëy tey wan ñu ko Eumeu Sène boo xam ne day mu ngay ñëwaat ci combat ak ki nga xam ne moo di Modou Lo comme Eumeu Sène nag wax ja mu ngi ko waxoon fii nga xam ne moo di ca Leewtoo TV yëglikaay bi sunu làmb xëy tey jël ko ëmma daal nee na combat bi moom nekkul loo xam ne lu dis la ci moom moom daal jàpp na ne day du combat boo xam ne poids ba dis na lool lool lool ci moom nekkul daal loo xam ne lu difficile la ëmma seen moo xëy tey di wax nee na fi mu nekk ni day li jeex mooy ay wax jëf dong moo des maanaam moom foofu la jëm waaye wax ji moom da koy tege na le mu mel ne ki tey yëglikaay bi daal xëy na ñëw ci kii nga xam ne moo di Eumeu Sène ñeneen ñoo xam ne moom yëglikaay bi dafa xëy ñëw ci ñoom mu mel ni ki nag weekend bii moom jàppal lambi lit affaire frappe ji moom tàngoon na jër dimanche ji ñu génn jàppal sunu lamb da caa ñëw ci diggante moot ja ak Kewel ñaari minutes lañ la ñu bëre yu tegal tuuti kii di moot ja wan Kewel ne ko day damaa mën a bëre daw na jël ko jàpp tànk ba mu ne fa lay yem mu aj loxo ya daan ko jël bu rëy rëy rëy daal di ko sukkër bi mu tëdd waaye dañoo continuer ba tey rek ca dimanche joojee fa nga xam ne moo doon ci arène nationale moom itam sëñ Modou Niang mu nga fa woon yóbbu woon fa général bu mbaaw ak kii nga xam ne moo di boogaa bu fas waaye booba combat moom sunu làmb ne na jàppal boogaa daal combat bi gën a gaaw ren ci saison bi moo ko bëre ndax nag sunu làmb ne na boo bëggee dégg dëgg moom jël ba mu daan kii nga xam ne moo di général bu mbaaw gaawaay ga foo ko takk weesu na ko fukki seconde la ñu bëre kii di booga daal di estopé kii nga xam ne moo di général wala boog da koo dégradé loolu daal la ko def fële nga xam ne moo doon ci arène nationale ba ci dimanche ji nu génn démb nag ci altine ji kii di jax moo woote woon stadium Iba Mar Diop jabel laa dum bu roog énergie jabel bu yoof jabel bëre ak moom yóbbu ko ardo ay yooni yoon yemuñu ca mu ñëw mu daan ko jël bu rëy sunu làmb xëy tey dinu ko wax ñoo xam ne moom fi mu nekk nii daanante la ñu def muy Gris ak Reug Reug mu mel ni nag yëglikaay bi di sunu lamb ñëw na ci Abdou Badji nag mu ngay wax ci ñoom ne na combat bi day combat la boo xam ne day bu nar a metti bu nar a doy ndax nag ñaari mbër yi ko seq day ah fi mu nekk nii dey ku ci ne day yoon wa nga ne baax na wala fa nga jëm yëglikaay bi xëy na tey wax ci waaye Leewtoo TV itam mu nga foon daal dina fa fekk fa fañ nekkoon démb nag moo doon kër champion ga ca Almadi Leewtoo TV teewoon fa ñaari mbër ya wax nañu rëg-rëg nee na bi day gaaw nee na yéex moom du ci am te nee bu ko góor na lépp doole day bàyyi làmb nee na loolu moom xalaatu ko tey girido itam tontu nee na moom daal li mu xam mooy mu yéex wala mu gaaw lu mu ci bëgg rek dana ko fi fekk bu buñ ca yeggee ñu yegg ca peesewu kaay ba kii di rëg-rëg yéeg peesewu girido lànk kandaare ne du peesewu ñu ne ko foo ko teg mu ne ndigalu kilifa la te du ma xët sama ndigalu ay kilifa loolu mooy wax ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di giri de démb caat ak armée itam wanante nañu seen bopp ku nekk daal yéeg nga ca ring ba def say box jën kayre itam def ko noonu moo ki nga xam ne moo di ki nga xam ne mooy Quench bu Lamsaar Leewtoo TV moo xëy tey dinu wax loolu léegi ni ko laay promoteur ba tamit wax na fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV mu mel ni ki daal démb moom kër champion yëngu woon na ba yegg ci lool ndax nag mbër ya ñëw nañu wane seen bopp bu baax a baax a baax ci wàllum daal ay box ak ay peesa wok yu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag jamono jooju nga xam ne nii day foofa mu ngay yëngu di di di jax lii nga xam ne nii moo doon tamit li simple bi yëngu woon na lool ci weekend bi nu génn ndax nag yëglikaay bi sunu làmb xëy tey jàpp leen fa nga xam ne nii moo di ca seeseen Bambey day yëglikaay bi ne na lafa amoon ci ay nag Doudou Sané moo ca teg loxo waaye kii nga xam ne tamit moo di xale boo xam ne xale bu ndaw la ñu koy wax Petit Lo moom tamit day gañe na fa aw nag ak ab junni lool ci li simple bi la amoon waaye ordinateur tamit wane na boppam bu baax a baax a baax moom juróomi nag jël na ko ak quarante mille francs fii nga xam ne moo doon ca la mu mel ni ki daal foofa moom mu nga doon dox bu baax a baax a baax dañ fay continuer rek ñëw fi nga xam ne moo di dakaar Dakar moom li simple bi tamit ci dimanche bi caaka fay la nga xam ne moom lañ tegoon Adrien Senghor moo ko jël ci kaw daam seen la daan dal di gàddu xaalis ba waaye ba mu bët setee démb ci altine ji mu ñëw fa itam final waat fa ak bébé jéen bébé jéen daan caaka fay moom itam jël lan fa tegoon loolu nag mel ni ki daal moo amoon ci weekend bi nga xam ne moom la ñu génne waaye taala tey li may def daal mooy ay Aysatu mii sama rakk ji laa namoon di ko baalu àq di ko baal di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal waaye taala namoon naa internet yi namoon naa revue de presse taala Njaay Ismaïla Lo moo newoon kuy woddoo làmmiñ booy noppi di rafle kon nag nañ ñu ñaanal baat biy wër ñuy gën di mën a wax ndax gaa yi mën a bég suivre Leewtoo TV nuyu leen bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax namoon nañ leen te xam ni sama mag ci tamit di xam ni maa ko raw fuuf comme eh, koo gis ku la namm rek namm na la maa la raw fuuf baax kat namoon naa la trop naka sa julli. <laughs> ay sa alhamdulilah julli gi moom macha allah dañuy ñaan yàlla rek di ko fekk at yu bëri te di ko paase xam nga parce tamit paase nañ ko si jàmm. vraiment dem ci famille bi parce que nit ku nekk rek amuloo lu dul fi nga dëkk ak fi nga cosaanoo te ñun comme li ñuy wax rek doomu ak yaay lañu te sa dañ ci fier dal kon bu ñu fa demee nag partagé ko ak waa dëkk bi ak mbokk yi ak bi dañuy sant yàlla di ñaan yàlla rek loolu yàgg sax di ko defal ñëpp si àddina barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam la xam ne daal na mën naa la trop trop ay sa fay madame ñaaw di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa borom kër rek sa njaboot waaye tamit taala di ko nuyu bu baax a baax waaw Babacar euh, di la fay te di wax amin bu baax ñu dugg si li nga xam ne ni mooy euh, waxtaan bi daal koy tàmbale ki nga xam ne mooy Eumeu Sène mu waxoon ci Leewtoo TV ñu dellu si at fekk fi nga xam ne ni mooy sunu lamb muy wax ci combat bi koy xaar revanche bu mag diggante mag Modou Lo mais fu mu toll nii moom daal jël na combat bi oyofal ko bu mu oyof ngir xam naa bañ nekk euh, pression ci moom ndax nee na du poids bu difficile pour porte ko. waaw parce boo xoolee keroog Korité bi mu Korité ba bët set. la ñu dem lul lul seeseen fekk ko fa dajeeg moom dëkk bu ñuy wax Ngoye ñu invité woon ko fa ci drapeau docteur Macoumba Diouf fa la waxee wax ji ay laaj yu doxoon suñu diggante ak moom ah moom nag jàppul ne komba boobu daal lu lu lu lu kii la lu diis la xëy nag li mu ci jublu mooy rassurer ay supporters am yu mel ni ki noonu waaw wax na daal loolu nag li ñu mën a xam mooy loolu mënul ñàkk parce que li ma la wax rek combat bu ñu ci jëmee communication bi ngay def da nga koy def benn ngir dimbali say supporters ngir tamit mën a teg sa adversaire pression wala nga mën ko réeral parce que actuellement fii ñu toll ni ci phase phase boobu lañ toll phase communication boo xam ne Aïssa xam nga da mën a daal nëbb yow li ci des tamit gis nañ ko ba tey mu ñëw ci mbirum mbokkam ak Yékini wax na ne nag mbokkam la moo tax bëri wuñu dajane équipe nationale wax na daal mais loolu lépp li si am solo mooy ñoom ñaar waroon nañoo bëri yàlla dogal na bëreetuñu xëy na rafetal mais vraiment daal li la wax ne moom ah fonk na combat bi mu jëm wax dëgg yàlla parce que boo xoolee ci doxalinam ak liggéeyam di nga xam ne combat bu mu jox cër la adversaire itam kazalika naka noonu ndax Modou Lo tey mu nga ba États-Unis Cincinnati di liggéey moo lay wan ne daal jàppal ne le 28 juillet moom ah, Sénégal dinañ am combat mais combat bu difficile ngay gis ci ñaar ñooñu waaw ñu ngi ñaan nag fekke ko te tal ku que le meilleur waaw Babacar combat boobu mënut a yomb parce que enjeu yi si laxasu moo bëri ñu dem si beneen combat boo xam ne tamit enjeu ba bëri na trop muy dox diggante ki nga xam ne ni mooy Reug Reug ak Gris 2 démb lañ doon def face à face Leewtoo TV toppal na leen ko mais démb face à face bi neex na bëri na bëri na coow kaay pesé Gris 2 nee na du pesé <laughs> coow li nag euh, nekkoon loo xam ne ni am na ñu ko commencé waroon na waruta woon pesé bu Babacar waaw xam nga làmb dafa doy waar làmb dafa doy waar démb nag lig ni ko laay comme li ñuy wax rek parce que démb bañ na ne du wax fenn mais man xam nga comme du ma bàyyi tànc naa ko ba ci ab roq wax loo ko yaa ñoom ni ñu ko waxee ñu leen di nuyu di leen ziar xam nga lig tout le temps rek li may wax mooy que ni olof dane ku yokkul yaa wàññi mais tout le temps mu ngi innové parce loolu lépp ay innovation la ay fimi sanak yooyu yëpp bu ñu ko gisee ci làmb ay hélico moom la tey pay moom view moo ko fi ñëwaat indi ko jëkk ko fi def tey am na ñoo promoteur yi yaa ngi ko ciy fekk si mu ñëwaat démb indi lu nga xam ne ni xëy na pës sax amoon na fi ci diggante Tapha Tine ak Balla Gaye mais xëy na ne na mu demee woon moo taxoon nit ñi xalaatoon ne dañ doon bëgg nax Tapha Tine yu mel ne ki noonu xëy na Gris itam loolu la xelam dem ñàkkul ay mbokkam ne ko wala ay kilifaam comme ni mu ko waxee ne ko bul posé wu que nit ku nag li daal sa xel xëy na moom ngay def mais nag ci benn côté tamit ñoom bëri nañuy dimbali promoteurs yi parce que li ñu leen di mooy que kii la tëgg fay la xaalis sol la blouson defe naa ngeen juboo ci ay kii war ngeen di ko amante compréhension waaw ci yenn détails yi quoi mais lamb nag dafa nekk lu sew a sew a sew a sew ba nga xam ne daal waaw pour nga teg ko fi football nekk ci professionnalisme wala basket wala volleyball pour nga yóbbu fa lamb ci côté professionnel day xaw a jafe lool lool lool mais loo ci mën a dégg daal promoteur bi moom réussir na parem parce que def na loo xam ne ni démb c'est la première fois ñu gis ko si lamb loolu nag mooy Luc Nicolaï Inco ñu leen di nuyu ñoom a ngi ci biir ah waaw tamit samedi la mais nga gis tamit foofu combat bu kii di Abdou Badji tamit euh, ñëw na si sunu lamb tam wax ci combat bi di xaman ni tam comme ni nga ko waxee rek combat bu palpitant lay doon combat bu neex lay doon incha allah. waaw non dina neex parce que xamul ndax muy neex parce que actuellement ñoom ñaar mënoo ci ne kii moo man morom mi parce que li tax mooy fi ñu jaar la ci seen carrière. rëg-rëg l'exemple bi mooy borom loolu moom mu neex mu naqari loolu la yàlla def actuellement moo ci teg tànk parce que bu ñu fi tegee fukki tournoi moom bu participer ci fukki yëpp jàppale neuf yi da koy gagné kon loolu yaa fi mën lay prouver li ci des mooy lit avec frappe mësagu cee daanu ñaari nii la ci am suma jumul ak onze victoire yaakaar naa waaw ak benn sans verdict kon kooku lutte lutte avec frappe dégg gu ci muñal Gris 2 itam lutte simple xëy na wanewu ci boppam bu baax parce que loolu mooy li am gis nañ ko fi mu bëri fi wax laay njombor daan ko man ci mu bëri lutte simple su dul loolu gisuñu ko feneen mais lutte avec frappe tamit bu ñu ci duggee ba tey gis nañ que ni mu ngi daan ay mbër te mbër yi muy daan ay mbëru lutte simple lañ ay champion d'Afrique kon loolu moo lay wane moom tamit am na lu mu denc ci bëri ba tax na côté bëree côté doole ak côté xeex vraiment ku ci ne am na loo xam ne denc nga ko li leen di xamal daal mooy képp ku ci xeep sa moroom wala nga su estimer ko maanaam ci maa la ëpp doole wala maa la dàq bëri wala waala man wala nàngam mën nga am loo naqari lamb daal li ma xam ci mbër mbër moom booy bëri ci biir bëri ay satu dañ na nay baaxul de nit du nay ci alalam waaye mbër moom day nay ci yaramam waaw waaw ah, loolu mooy kàddu dëgg ndi day mais day nay ci li nga xam ne nii mooy yaramam ñu dem si ki nga xam ne mooy Papa Sow tamit ngeen dem am ak moom ah, waxtaan bu yaatu Papa ñu koy annoncé fële ca États-Unis Babacar waxtaan bi. waaw ñun day xam nga comme ni ñuy wax rek Babacar moom du bàyyi ma ciy profité di nuyu Lamine. waaw Lamine la woon baaw rek Talla Ndiaye parce que li lay wan mooy tey dama naan Leewtoo ak Lutte TV ñoo bokk ndey ak baay parce que 100 la ak sunu lamb bii ñuy wax nii parce que li tax mooy na a neex wax na ci combat Gris la ko fa yóbbu woon parce que ne dafa am benn xaritam wala benn rakkam boo xam ne da doon jongante foofu ci États-Unis ci wàllum boxe moom la demoon soutenir ko loolu def fa une semaine ñibbisiwaat wax na ci combat Gris 2 moom li muy day yedd Gris daal nee na secret yi nga xam ne moom la xam du wala foor yi du ko wax parce moom am na fu mu bokk muy faas am na fu mu far li mu xam daal mooy dina ëmb rakam samedi yóbbu ko ngir fexe mu daan rëg-rëg ay combat itam wax na ci digganteem ak guy gi digganteem ak Siteu yooyu yëpp nee na ay adversaire lañ du ci wax kenn lu ñaaw mais ku ci ñëw rek war a bëre ak moom dina bëre ak yow parce que moom nee na nekkul mbër boo xam ne mbër bu lamb la promoteur yi boobu ba tey ñu ngi koy démarché xëy na kon jàpp na ne xaalis moo nangamu moo amul wala yu demee ne ki noonu waaye daal waxtaan nañu ko waxtaan wu neex a neex ci Leewtoo TV. kon mbokk internet yi vidéo boobaa ngi noonu ci Leewtoo TV ngeen koy fekk incha allah Pape Kaw ñu dem ci li nga xam ne amoon na ci lutte avec frappe ak li nga xam ne tam mooy lutte sans frappe weekend bi neexoon na torop diggante dimanche ba lundi. Fallou Ndiaye tëgg na euh, Jax tëgg na sëñ Modou Niang tëgg na diggante euh, mujja bu kéwal boogaa bu général ak euh, boogaa ak général ki nga xam ne ni mooy jabel ak laadum affiche yu neex Babacar waaw loolu moom moo lay woon nekk làmb ji ay sa mu ngi dox macha allah parce que boo xoolee li ko commencé dimanche ba lundi lépp ay làmb am na dimanche bi ñaari journée moo amoon arène nationale sëñ Modou ñaa nga fa woon boogaa bu Fass di xale moom tamit bokk ci espoir bu mbaaw jëli bu a moom yàggul tëwul waaw kon loolu mooy mayu ko fu mu yekkee nàkkam arbitre suuf leen rek mu daw tamit daan nañ ko bu mbaaw euh, drapeau du jànjee ko nag Fallou Ndiaye ko tëggoon yaa ngi dégg muy drapeau boo xam tamit dara maanaam ahlu làmb yëpp nga fa woon ba ci ministre bi guddee na ñëw mais fexe na ba ñëw kon loolu rafet la muy drapeau boo xam ne neexoon trop Fallou Ndiaye tëgg ko Modja ak Kéwél itam la ma ci waxoon rek Modja dafa nekk mbër boo xam ne Aïcha ah, bëre da ko nax ci biir lewaatoo bi parce boo xoolee mu ngi lewaatoo moom di di ginnaaw fekk boobu da koy aspiré pour muy ñëw léegi ñëw boobu muy ñëw doon na ko ci benn korosi góos boo xam ne bu ko dal la te korosi loolu nag xaw na ko wàññi ba moo tax bi ko bi moo jë defee loolu ba pare di reculer waat mu mu continuer di avancer ci kaw mu jëkk jékki rek wàcc tibb tànk bi bi mu ko tibbee mu génn foofu mu yaakaar fa la yem mu jë yokk loxoom ca kaw takk ko ba mu dëgër léegi na foofu pour mu génne te day jafe ndax mu jë entraîné na ci combat bi waroon mu sukkër bi ko mu tëdd ñuy encouragé kéwél gëj na daama gëj na daanu lool ca digganteem ak. réglé woon na fi lu waaw trois kon gëj na daanu ca ba ko Boy Niang bu école Balla Gaye daane la gëj a daanu ci dynamique bu neex la nekkul mun ja tamit vraiment boo xoolee daaw ni mu daane gàmmu géey ren mu ñaar def li moo lay wan moom tamit nañ ko bàyyi xel technicien la te mbër mu mën a bëri la macha allah ñoom ñaar daal ñu leen di wax di encourager kéwél di féliciter Modou Dia. baax ñu jeexal ak lutte village yi amoon na tamit fi nga xam ne ni mooy Adrien Senghor ñu gis ni dimanche bi Thiaka Faye jël na ko ci kaw ki nga xam ne ni mooy Dame Sène mais lundi ba kii di Bébé Diène moo jëlal di jël tournoi bi si kaw ki nga xam ne mooy Thiaka exemple bi tamit comme ni ñu ko waxee ci li affaire frappe bi rek moo lay won ne daal li ma la wax sax mu ngi dox rek parce que boo xoolee weekend bi vraiment àll bi Bambey Sessène Fimela Bambey Sessène dut saane fa teg tànk Fimela ki nga xam mooy ordinateur gis nañ benn xale boo xam tamit xale bu ndaw la muy Petit di doomu Modou Lo comme ni ñu koy waxee moom tamit euh, poids bu moyen bi mu gagné ko foofu ca Bambey Sessène ñëw Dakar gis caaka mu finaloog Dame Sène ci dimanche bi ñàkk leen euh, non gagné di moins waaw dafa gagné dimanche euh, di leen di démb mu ñëw kii di bébé jéen gagné ko moo lay wan ne tamit lit simple bi vraiment mbër yaa ngi bëre te boo xoolee que ñu dem nañ fi lul seeseen gis fa tournoi bu neex ci diggante final bu rëyoon ci diggante Sele Sele Mele ak Pakala mu lay wone daal vraiment lutte simple mu ngi dox moom tamit def ay jéego bu baax a baax di féliciter ñi gagné tournoi yi di encourager ñi nga xam dañoo ñàkk lamb simple moo nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV seen revue de l'arène di leen jox rendez-vous suba mais balaa boobu Babacar dañuy seeti ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye moom tamit journée euh, léegi mu ñëw dimanche bi di ñëw incha allah day doon fële ca Iba Mar Diop incha allah waa dimanche parce que bu lig Nicolas mun saison mu tëjaale ko saison ren mu war a ñëw kon kooku combat boobu combat bu ndaysaanu la ah. booy bawal tam dañ dañ ko daan de ama neex ak daan. booy bawal ñëpp léewtoo leen tëggoon. waaw te ñoom ñaar léewtoo leen tëggoon booy bawal géejawaay la ko ama neex daan doon Amadou Buri mm. combat bu gaaw moom tamit. kon combat bu ndaysaanu la ñoom ñaar nag ay technicien lañ ay bëreekat lañu moo tax Assane Ndiaye lépp combat bu doy waar la tëgg dimanche ñu koy nuyu di ko ziar moom ak waa Baol production yëpp di wane ne daal moom itam mu ngi bay waaram vraiment Assane mu ngi bay waaram bu baax a baax comme ni ko promoteur yëpp di defee ndax gis nga sur lendemain tabaski la mu def Jurbel fees stade ba dell kon daal nañu bàyyi xel tamit euh, vainqueur u Gris ak Reug Reug tamit tey waaw mbokki suivre Leewtoo TV dañ leen jox rendez-vous suba incha allah si beneen suivre Leewtoo TV li leen loon ci seen revue de l'arène di gërëm ki nga xam ne mooy Mame Talla ci caméra bi di gërëm Ousmane ci montage bi di gërëm équipe bu Leewtoo TV bi yëpp. ñëpp di balu ñëpp ak di wax ne képp ku ñu tooñ wala ñu wax lu la lu la déranger nga baal ñu àq nit moo matul. yàlla mooy baaxal mooy jubal kàddu gi baax wala gi ñuy dégg man ko nangu kon di nuyu sénégalais yépp di leen balu wax encore une fois mais man xam nga waa groupe bi nga nuyu ñoom tam maa di nuyu mais man nag tey damay nuyu waa Mira ku mel ni ki nga xam ne nii moom mooy joor maa koy nuyu bu baax a baax ñoom matu jaxum pa di nuyu tamit cousin boobu Cheikh Diakhaté bi nga xam ne daf ma après daf daf ma yónnee vocal di ma bëggee loolu seex maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa sœur matu mais di nuyu tamit euh, ñi nga xam ne ñoom di nuyu ñëpp ah di jaar ñëpp mais kenn du Papa Guèye nag ministère de finances gis nga montre bi Talla Ndiaye Aïssa montre bu quatre-vingt mille francs la ma takkal bërki démb Papa Gueye Papa Gueye ministère des finances maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mais di nuyu képp kuy bëggee Babacar Cheikh Sarr mu ngi ba RTS maa ngi koy nuyu commandant Fall duma ko fàtte sama soppe yi nekk Europe nag ak États-Unis ak France ak Asie fu ñu mën a ne ci àddina bi Babacar ak leen di bëggee mention spéciale ki nga xam ne nii mooy